muy télévision bu mag bi nekk ci grande mosquée de Touba ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal dellu ak yéen ci benn ci suñu jataay yi nga xam ne moom la ñuy wétlante ak yéen te jataayu tey bi bokk ci jataay yi ëpp solo mu bokk ci li ñuy wax liqaat te mooy ndaje ndaje nag tey ñu am gan gu mag goo xam ne moom lañu war a séqal jataay bi moo nekk nii ci sama loxo càmmooñ ñu koy wax sëriñ Abdou Khadir Kébé moom lañ fekk si fii tey fas yéene def ak moom jataay bu rëy sëñ Abdou Khadre Kébé nag buñ ko waxee xëy na melokaan yi bari na jëng yëngatu ci wàllu koom-koom yëngatu ci wàllu gëstu waaye tey nag ci beneen posture moo ñu fi indi te mooy li ñuy wax lakk wolof lakk wolof woowu nga xam ne def na ci ay jéego yu am solo def ci ay gëstu def ci ay mbind ba bind ci téere boo xam ne moom tey jii bokk na ci li ñu fas yéene waxtaane ak moom. sëñ Abdou Khadir Kébé du ma guddal sax ci di xamle mooy kan waaye dañ koy bàyyi rek moom mu nuyoo sëñ Abdou Khadir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa télé bu tedd bii nga xam ne mooy télé bu Touba Jumaay yaakaar naa télé bu Jumaay Touba nag ku mu moom da ngay yëg ne am nga fierté bu wér a wér nag ndax euh, Jumaay tubaa du caaxaan. Euh, lu toll ne jumaay Tuubaa buñ la euh, ndongo su su ñàkk solo su mel ne noon buñ ñu wooyee dalal nu ak tiitaange gu rey rëy la am waaye nag di ci sant nag ndax day wane rek kon liggéey bi ñu doon liggéeyal Sëñ Tuubaa euh, mel na ne maanaam mi ngi feeñ waaw ndax buñ demee ba Sëñ Tuubaa ci jëm boppam ndax jumaa ji mooy représenté Sëñ Tuubaa kon kon ñu ngi leen di sant ci ñëw gi ngeen fi ñëw wasalaamaaleykum di dégluwaat jërëjëf sëñ Abdou Khadre ci euh, nuyoo bu am solo boobu nga nuyu ni nga ko waxee euh, jumaay Touba euh, tuxu ñëw déplacé wu ñëw di seet si sëñ Abdou Khadre Kébé loolu dinañ ci ñëw ci kanam xam naa ne loolu yeneen i mbir moom làqu na ci yoo xam ne <laughs> des na ko gën a leeral <laughs> waaw <laughs> ok waaye tey bu ñu doon wax sëñ Abdou Khadre Kébé mooy kan loo ñuy tontu. Abdou Khadre Kébé de moom xam nga am na ñu fi ñëwoon laaj ma ko ma ne leen ab dongab daara rek la daal. boo xam ne bu fekkee dafa mënta ñàkk euh, wax ci sa bopp du yomb waaye bu mënta ñàkk daal lañ ciy wax mooy euh, man Abdou Khadir Kébé laa tudd euh, bu dee ci wàllu njàng ñu ngi jànge maanaam diggante njaareem kër sëñ Mor Mbaye Cissé sëñ Saliou moo na fa yóbbu woon jóge fa bañ fa jàng alxuraan ba noppi sëñ bi indiwaat ñu ciy daaraam ñu jàng fa xam-xam jóge fa dem kër sëñ Souhaïbou bu àggal fa fa njàngum xam-xam biñ jàngee xam-xam ba noppi itam jàngale fa ab diggante tukki euh, biñ demee ci biti itam liggéey moo nu taxoon a jóg waaye defaat nañ fa ay njàng euh, ay gëstu fu mel ne Siena ci benn université bu newoon foofu biñ dellu siwaatee itam euh, maanaam nekk ci wàllu liggéey taxawal benn entreprise boo xam ne dafay yëngu ci wàllu bâtiment travaux publics ci biir loolu itam adjoint au maire lañ. ci mairie tubaab yi yor commission bi ñuy wax euh, maanaam voirie habitat ak euh, nuñ koy waxati euh, ak ak urbanisme waaw loolu loolu lañ fa yore léegi nag di gëstukat tamit ci wolof gëstu nañ ci lu lu yàgg yàgg bind nañ tamit ci arabe traduire ci ay téere waaye traduire nañ ci wolof itam ay téere yi Sëñ Tuubaa yu bëree bëri yu mu def waaw bind nañ ay article tamit ci yeneen làkk danañ wax français di wax anglais di wax italien di wax euh, arabe moom ci lañ jànge waaye tam di def ay gëstu yu xóot ci wolof loolu daal bu ma doon gàttal euh, maanaam définition maanaam leeral ñu ñoon ñooy kan lu mel noonu daal laa sañ a wax. sëñ Abdou Khadre Kébé multi dimension. déedéet déedéet. <laughs> ñu wax loolu ndax li nga fi tënk ci ay ci ay ci ay posture bari na. waaw waaw maa ci maa ci dolli nag. Uh-huh. Ah, moo moo jur sa waajur wu jigéen. ndeysaan dolli ngir présentation bi. dëgg la Seydou Khadim mm-hmm. état yu tey bii nag ni nga ko waxee léegi ñëwuñu ci Cheikh Abdoul Khadir Kébé chef d'entreprise. wala arabisan wala gëstukat ci wàllu xam-xamu diine dañoo ñëw ci Cheikh Abdoul Khadir moo xam dafa yàgg gëstu ci làkk wolof. ak luy tax làkk woowu mën a tasaaroo. ba bu yàggutoo mbaay nga bind ci nag benn téere boo xam ne yaa ngi ko duppee mboorum àdduna mu jamono mi mm, mu jamono mi mm. muy téere boo xamante ni nag téere bu am solo la boo xam ne mm. ñu baree baree bari ñi ngi bëgg xam li ci biir téere bi loolu moo tax nag suñu jotaayu tey bii tey ñu amoon ko waaye tomb bi ñu lay njëkkalaaj mooy tey noo gisee làkku wolof ak dayo biñ ko war a gën a jox ci réew mi tey boo doon boo ñu ko doon tënkal yow looñ ciy wax la foofu sax damay njëkk bala maa tàmbali damay ñëw ci ni nga tuddee woon tudde bi euh, maanaam téere bi tur woowu mooy tur wi ñu ko njëkkoon a tuddee muy mboorum addunam mu jamono mi maanaam mboor mi nga xam ne dafa toll ci contemporain maanaam li ñuy wax contemporain mooy muhaasir muhaasir euh, taarixul xaalam al muhaasir waaye biñ ñëwee nag ci éditeur bi ki ko doon édité muy euh, Boubacar Boris Diop di jàmbaar moom itam ma koy euh, nuyu euh, maanaam moom ci jëm boppam nag moo joxe woon proposition gaaral ne nañ ko def turu mborub àdduna si ndax mu gën a gàtt gën a tënk waaye kon téere bi bu ñu demee mborub àdduna si la tudd laaj bi nga doon wax nag di laaj bu am am am solo euh, maanaam dafa da nga ne maanaam ni nga gisee wolof ak fi ñu ko teg ci jamono ji ñu toll du fekkee ne laaj bi loolu lay xam naa waa man man gis naa ne wolof wax dëgg yàlla ci Sénégal lakk la woo xam ne bu ko maanaam càmm gi muy muy nguur gi muy état bi euh, joxul gëdd maanaam xamul ci lim nekk amul lu gën a doon farata jox wolof gëdd fi ne ndax euh, lakk la woo xam ne mën nañ ne lu ëpp juróom ñeen fukk ak juróom yu teg ci téeméer ci réew mi muy muy quatre-vingt-quinze virgule nangam pour cent ci waa réew mi yëpp wolof la ñuy wax waxin wu rafet boo demee euh, ca euh, extrême maanaam boo demee ci cat la ca ci réew mi ci ci côté ci wàllu maanaam gànnaar gi muy boo dem Fuuta la ñuy am seen lakk bopp lépp boo demee man dem fa lakk boo waxee wolof ñu tontu lakk te ñoo fa nekk ñëpp ko dégg itam ak donte nag am nañ seen lakk boo xam ne. làkku réew mi la ju ñëpp ñu fonk ko mu mu neefee muy muy muy tukkulóor boo demee euh, maanaam Ziguinchor wolof mooy làkk bokk na ci làkk yiñ ñu gën a wax kon la wolof du làkku aw xeet làkku réew mi la langue véhiculaire la muy lakk boo xam ne làkku jëflante la tey jii tukkulóor bu gisoon ab ab joolaa bu bëggee jëflante du wax français maanaam wolof lay wax joolaa bu gisoon keneen beneen xeet wolof lay wax kon doonatul làkku xeet te buñ ko toppee ci wàllu xeet sax ñun ñii boo nu xoolee man boo duggee ci côté Kébé da nga may dàq ma dem ci diggante ay saraxoleeg ñoom ne boo demee ci côté Mbacke nga ba ma ma dem ci tukkulóor yi ak pël kon li muy tekki mooy lakk wi lakk waa réew mi lépp la te lakk wi yëmul ci réew mi boo demee Mauritanie dañ koy wax nga dem Gambie ñu koy wax nga dem Mali euh, ñu koy wax ah diaspora bi di ko wax kon lakk la woo xam ne buñ bëggee réew mi jëm kanam buñ bëggee réew mi euh, maanaam man di déggante te Cheikh Anta Diop dafa waxoon lu am solo dane maanaam euh, euh, maanaam boo doon jàngal gone gi tey euh, maanaam dafa am benn benn masala boo am solo bu mu wax dane un point qui se déplace engendre une ligne maanaam benn boo bëggee te boo bëggee rëdd da ngay tomb xëcc waaw mala wala tomb xëcc rëdd ngi amee ci tomb xëcc mooy mooy léegi nag mu ne loolu boo ko bëggoon a jàngal bi da nga soxla nga ay juróom ñaar at xale africain bi ngir jàngal ko grammaire orthographe dégg nga vocabulaire toppe ko noonu toppe ko noonu mu doog a mën a wax ne boo bëggatee rëdd tombal xëcc loolu nag ñun bu Sénégal buñ amee benn système éducatif boo xam ne dañ cee xañ wolof di ko jàngale ci lakk woo xam ne tey ay kilomètres ngay jéego doo doo mu doon làkku jàmbur woo xam ne te lakk colon yi ñëwoon fii not nu muy lakk woo xam ne boo ko déggut mënoo doon président soo ko déggut mënoo am ci marché yu ci réew mi mënoo doon ministre mënoo doon dara kooku wax dëgg yàlla gàcce gàcce la moom mooy li nga xam ne ñëpp war nañ cee xeex moo tax laaj bii nga laaj mooy laaj bu am solo Sénégal nu fi wolof war euh, ban gëdd lañ ko fi war a joxe nu war a tollu boo ko waxee mooy lépp lañ ko war a jox jëli ci des ñu topp ci ginnaaw man loolu mooy li nga xam ne sama gis-gis loolu lool loolu tekki tekkiwul ne euh, dafa gën yeneen yi waaye yàlla mooy bindoo noonu moo moo defee loolu maanaam euh, am mbooloo mu daje mu ne am na loo xam ne ci la ñuy déggante ci la ñuy mën a dundee. dëgg la xabaar yi àgg bu ñu bëggee jëflante bi gën a rafet faaw ñu si ci làkk wi nga xamante ni moo gën a tasaaroo ci réew mi te koo ne dama ne mu ne ah loolu sax gàllankoor la ci ndax boo demee ci suñu sartu réew mi dañ naan kenn amul sañ-sañu bañ a xam yoon ndax tey bu ñu lay atte sañoo ne xaw ma ko woon nul ne censé ignorer la loi waaye nag day fekk booba xanaa nga xam ko kon est-ce que gàllankoor yooyu bu fekkoon ne charte nday réew mi wax nañ ko ci wolof yu leer kon ndax bañ gii nit ñi di bañ di bañ loi ndax xamuñu ko xamuñu ko ndax bu boobaa kon dana dëgg la gis nga sax fi ne fi ne jox la misaal ci loolu fi ne nañ wax lu lan mooy état état xam nga Sénégal gii boo ñëwee ci wolof yi nguur la wax te nguur état nguur mooy li ñuy wax royaume ab mamlaka état man bi ma koy jox baat dama ko jox ak càmm maanaam maanaam li nit ñëpp bokk ñëpp nekk ci biir mu ñuy booloo yilif nu ñu sàmm waaye ñu yilifaat ki nu yilif ndax ki yilif ñoo ko jël pour mu jiite ñu ci lu mel léegi nag loolu ndey atte ji muy mooy constitution bi boo ko jëlee def ko ci weneen lakk maanaam nit ñooñu. ci wàllu démocratie démocratie des na parce que démocratie mooy nit ki mooy gouverner boppam fekkee nit ki mooy gouverner boppam di ko gouverner ci làkk woo xam ne xamu ko làkk charte yi ko tëral sax ngir mu tee war dox wax jàngoo ko moo waral man bokk na ci liggéey yi ma yi nga xam ne defaale naa ko ci mooy constitution bi traduire naa ko ci wolof lépp bam leer te bi ma ko traduire dafa yomb dafa yomb maanaam fi ne nii buñ la ko doon waxal fii buñ ne la article nangam lii la wax da nga naan déedéet lii ay ay ay waxtaan ci benn bi la te buñ ko waxee ci ci ci la ko waxee ci ci français da nga naan lii moom lu kenn mu tax mooy mooy li nga doon wax léegi ñëpp dañoo war a xam yoon. ñëpp dañoo war a xam yoon. wala munoo loo def soo ñëw ne xawma ko woon parce que yoon dañ ne la faratale ci yow nga xam ko mais mais mais bu fekkee dañ koo def ci beneen làkk noo koy xam. waaw loolu daal mooy li nga xam ne moom. moom bëggoon naa ko ci dolli. ok jërëjëf. Hmm. jërëjëf Abdoul Khadir. mu ñëw ci téere bi nag. lan mooy sababu. nga taalif téere bi. Hmm. Hmm. waaw. waaw laaj nga laaj bu am solo euh, lan mooy sababu ñu taalif ko maanaam mboor lañ taalif maanaam loolu itam li tax ma koy wax euh, maanaam man dafa am gis-gis bu ma am mooy xam-xam dañ ko war a def ci wolof. xam-xam boobu ñuy war def ci wolof nag amul xam bu am priorité ci ci borom budul bu diine ginnaaw ñun dañoo yar yarub diine ñuy ay taalibe te diine itam. ci dégg yi ni ñu ko amee mooy addina daf cee bokk maanaam kullul laa yeta jasal mooy muy diine ak allah addina ak alaxira du ñaar benn lañ maanaam euh, jumaa ja diine la marché ba diine la man loolu lañ gëm ndax yonent bi nga xam ne moom la moo mooy sunub yonent sallallahu taala alayhi wa sallam moo doonoon général bi ci xare moo doonoon imam ja ci jumaa ja waaye mooy ki nga xam ne mooy génne mooy faqih bi génne gi génne maanaam maanaam euh, mooy tasrix mooy mooy mooy génne maanaam loi yeeg yu mel noon kon ko normalement buñ ko royee war na noo mën a gis ne kon diine ci lépp la nekk. ak waaw ak ibaadaat mu ngoog léegi boo xoolee nag ñu bind euh, mboor mi def ko ci wolof mooy dañoo gis ne mboor dafa am njëriñ ngir xamal nit ki ndax alxuraan sax boo ko dee xool maanaam daanaka genn wàll gépp mboor la. waaw ñu eh, maanaam eh, ñu ngi lay nettali lii ngir nga mën cee jële lii ngir nangam nangam eh, maanaam laxat kada fii xasasihim xibra li ulil albab léegi yooyu yëpp boo ko xoolee da ci gis ne kon alxuraan maanaam ay xes ay xisas la doon jël di ko di ko nettali ngir ñu man cee amee mawhisa dégg nga ak xamee ci li li nga xam ne jàll na léegi nag bu dee mboor nag fii man dama ko nettali ngir loolu waaye dama ko nettaliwaat ngir léegi dafa am ay terminologie yu ci nekk am xam-xam bu ci nekk ñoo war a xam xam bi war a xam baat yu bees yi ci am war koo bind itam bañ xam ne wolof kat ndeke lakk bu ñuy war a bind la te boo ko bindee ci diine am na ñoo xam ne diine ñoru leen waaye da ngay bind da ngay dugg ci science nga indil leen ko ci avant ma koy def bind duggoon naa ci téere yi Sëñ Tuubaa yi maanaam tasawur sixaar def nañ ko ci wolof jawhar nafis def nañ ko ci wolof def nañ lu mel ne Euh, irwaawul nadim ak naxjul xadaal xaaj ak mawahirul xudus doog dugg ci téere yi téere yi def naa ci bii mboor bii am na benn arithmétique mooy xisaab def naa ko ci wolof dégg nga euh, maanaam li ñuy wax nos wax nos wax mooy mooy mooy mooy grammaire maanaam ci wolof defar naa ci bu yéeme boo xam ne tey dana dana génn bu génnee dana dana dana am njëriñ lool ci képp kuy gëstu ci wolof ak yeneen liggéey yoo xam ne def nañ ko ci lool li tax ñu def ko mooy yëg ne ni ma la ko njëkk a waxee léegi làkk wii di wolof tey lakk la woo xam ne dafa war a dañ ko war a jox gëdd ndax li ëpp ci Sénégal moom lañ dégg te euh, li ñuy wax xam-xam du lakk xam-xam mooy maanaam lakk am mbuus la mu ëmb maanaam maanaam maanaam moom mu ëmb nag mooy xam-xam maanaam maanaam moomu ëpp outil la mu goog mu goog léegi nag la ñuy sonn di dem ci lakk jàmbur ñii di jàng ci arab ñii di jàng ci nangam te li leen di jàngal leen la rek mooy mooy mooy lii kat ab téléphone la lii ab téléphone la nag nga wax ko ci séeréer nga wax ko ci wolof nga wax ko ci ñooyam wax ki nga bëgg a waxal wax ko ko mu xam ko léegi nag ginnaaw nag ah, yàlla dox nañu làkk woo xam ne tey bu ñu doon màggal Tuubaa gi cérémonie officielle bi làkk woowu la ñuy waxee euh, euh, gouvernement bi boo xam peuple bi bu doon def ay campagne électorale wala yu mel noonu ci làkk woowu lay waxee kon li muy teg boo demee ci marché bi moom ngay waxee kon la ñuy teg te loolu mooy suñu làkk te li may wax ci téere bi am na lu ñuy wax xasaru nax da boo demee bokk na ci simaat yi nga xam ne mandarga yi nga ko yi ko doon yi ko doon caractérisé maanaam da nga gis ne maanaam feeñu euh, maanaam luxaat yi maanaam luxaat maxaliya yi juge ci ay ay luxaat maxaliya dem ci maanaam luxaat xawmiya muy ay juge ci dem juge ci ay làkk yi làkki barab dem doon ay lakk ay réew et cetera bokk na ci li ko li ko caractéristique maanaam li ko li ko wone ndax fi ne boo xoolee làkku latin moo doonoon seen lakk waaye bi ñu demee ba mu yàgg da ngay gis euh, ay ay bindkat ci seen ci seen ñooñu commencé bind ñu commencé ñëw bu ko defee euh, mu commencé dem bëri na ci yoo xam ne ay mandarga yi leen di xasru nax da maanaam mandarga yooyu daf caa bokk lakk yi feeñal te loolu li ko li ko feeñal mooy gis ne làkk yee ñu doon bindee làkk la yoo xam ne kenn du ko xam xaf na mina naas ñu néew ñoo koy xam ñu dem ci làkk wi ñëpp di xam ñu ñu bind ci loolu nag moom bokk na ci kon lu tax ñu bind ci wolof. macha allah muy lu am solo loo xam ne gis nañ ne sax nguur gi fi ñu ngi koy dabaatal am nañ benn programme bu ñuy wax LPT lecture pour tous di ko jéem a def ci daara yi suufee yi ngir di ko kii waaye gis nañ ne ba léegi des na ndax ci lecture bi rek lañ yam yamuñu dugguñu ci xam-xam bi dëgg-dëgg taxul tey géographie ñoo ngi koy jàngale ci tubaab ci français science ISC ñoo koy jàngale ci tubaab histoire ñoo ngi koy jàngale ci tubaab waaye bu ñu demoon ba lakk yooyu ndax ni nga ko waxee léegi mooy lu am solo mooy jëmmi làkk yu comme utile warti nekk gàllankoor warti nekk gàllankoor ci ñu am xam bi ci ñu jëlee xam-xam bi loolu di lu am solo waa ñu buñ duggee ci biir téere gis nañ ci bunt bu njëkk bi ñu wax ci yeewu teg euh, yeewu teg waa waa yeewu teg waa tugal loolu loo jublu ci yeewu teg waa tugal waaw teg tugal yeewu teg tugal li muy tekki euh, wax naa ko ci boo boo jàllata dafa ne yeewu teg tugal gi li muy tekki maanaam ci mu taarix maanaam mboor mi mu yore mooy yëngu-yëngu dekkal ak dundal wala yeesal xay gu tugal gu yàgg ga bu Grèce ga ak Rome rawatina ci wàllu tër mooy mooy mooy littérature tër mooy littérature euh, dégg nga xay di civilisation maanaam euh, ak tabaxin mooy mooy architecture loolu mooy bu ko defee nag euh, ngir ngir ngir ngir mën a ñëw ci lan moo tax ñu tudde ko yeewute boo ñëwee ci baatu tubaab baatu renaissance la andi renaissance li muy tekki muy judduwaat maanaam boo waaye boo ñëwee ci arab da nga gis ne naxda la ko tekkee naxda nag tekkiwul judduwaat ak buur lay tekki jug mais waaye maanaam mii mépp boo ko jàngee ba noppi li mu lay tekki mooy yeewute mooy bi lii kat bi mu leen dikkee nit ñi dañoo commencé wax te yeewu maanaam te yeewute li ko indi boo ko xoolee maanaam ci xusurul wustaa muy jamono yi li ñuy wax moyen âge maanaam jamono juddi diggu ji li jamono jooju boo ko ñëwee ci histoire dafa am ay jamono boo maanaam jamono jooju la moom la jamono ju diggu ji jamono jooju tey gisoo sax boo xoolee ñu naan la moom kat yëf yi moyen âge la fee ni mooy yëf yi ak deltu ginaaw xam nga jamono jooju ak deltu ginnaaw moo amoon maanaam moom li naan al al nisaab al iqtaahi moom la ñuy wax la man di ci français système féodal moom la tubaab yi doon dund nga xam ne tey ab sang mooy am wala benn baykat bu mag jël ay ay surga yu dul jeex ñu dëkk fi mu nekk dégg nga mu leen di liggéeyloo et cetera waaye nag bi nga xam ne yeewute mi ngi amee ci bi tubaab yi amee ihtikak amee ak jonjoo ak julit ñi nga xam ne ñu ngi ko jaare ci bi jullit ñi duggee euh, Andalusi ak Sicile ak fi ñuy wax euh, maanaam li ñuy wax hurub salibiya muy muy muy xare gale jane yi man moom laa ko ëllëg ci ci wolof. léegi nag yooyu dafa jul jullit ñi maanaam tubaab yi amee ci ak jokkoo ak jullit ñi xamee ci xam-xam yi ñu amoon mu njëkk église moo ne woon moo ne woon Europe daan leen jàngal naan leen suuf si dafa talleeku te fekk boobu suuf si dafa dafa kuraw yi dafa dafa dafa dafa kolkole léegi léegi léegi nag yooyu yëpp bu ñu leen ci nekkee ay kon loolu li muy tekki mooy xam-xam yi mu leen daan andi du xam-xam yu yu scientifique maanaam ay laahut la daan andi muy xam-xam yi yàlla ak lu aju ci yu mel noonu te te te waxewuñ ko sax dëgg-dëgg nam nam nekke ndax amewuñ ci loonu xam-xam waaw ndax bëri na loo xam ne ci téere yi maanaam luñ luñ mu xarrafa la maanaam ay téere yoo xam ne maanaam leneen seeni gis-gis bopp rek lañ ñëw andi tëg bi loolu amee nag ba yooyu am ci la tubaab yi naane ci xam-xami lislaam yooyu tekki ay téere ci yu bëri ci téere jullit yi ci la nag maanaam euh, yeewute ku tàmbali am dëkk yu mag yi ñëw liggéey yañ daan liggéey ci maanaam tool yeeg yooyu wàññeeku ñu commencé am feneen fu ñu jëlee seen alal xam-xam commencé ci la maanam tugal nag tàmbule am li ñuy wax nax da maanaam li ñuy wax maanaam ak yeewute loolu la ñuy tuddee jamono yeewute gi. waaw loolu loolu yeewut ak tugal gi daal ma doon wax di ko tënk lu yaatu la nag mën naa ci wax lu bëri parce que dafa am ay ay mandarga yoo xam ne ñoo ko mandargaal mm, bokk na ci euh, bu ma ko doon tënk bu fekkoon mën nga maa may ma ma tënk li ci téere bi lépp. loolu waaw waaw waaw bu fekkoon waaw. bisimilah ndax am na beneen point bu ci topp boo xam ne bu ma intéressé la hmm. mooy jeexital gu lislaam ci yeewut ak tugal googu ah, loolu moom soxla naa ko. waaw waaw loolu sax <laughs> waaw loolu. Euh, <laughs> loolu sax euh, kon téere bi euh, bu ñu noppee ñu ma tëggal ci lu gàtt rek téere boo ko xoolee bi ñu ko bindee dañ ko def ay bunt bu ñetti bunt la bunt bu njëkk bi dafa am ñetti xaaj dafa am ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mi ngi wax ci njëlbeenu jamono jamono yu yees yi euh, maanaam yeewuteeg tugal gi daf cee wax yeewuteeg tugal gi moom lañ doon wax léegi mooy mooy li ñuy wax renaissance gi wuññi yu melo suuf yi yu ñuy melo suuf yi moom la ñuy wax découverte géographique nga xam ne tey dañoo dugg ci découverte géographique yooyu mooy ku suufaat géographie yi maanaam loolu dafa am lu ko waraloon boo xoolee jamonoy Christophe Colombo ak ak ñi am avant loolu ñuy dem Amérique. waaw njëkk nañu. waaw mu njëkk foofu am na dem nañ Afrique dem nañ fa nangam nangam euh, xam fi ay barab yu bees gis fa ay xéwal euh, maanaam loolu tamit dafa am lu yeewuteeg ndefar dafa am yeewuteeg ndefar mooy. Euh, mooy mooy jamono yi industrie bi muy maanaam euh, maanaam bi muy euh, évoluer di avancer dëgg jamono jooju tubaab yi Angleterre maanaam ak yéer yu mel noonu bi ñu tàmbalee dañoo daal di dugg ci kusuufaat géographie yi commencé nag di fa gis ay ay ay mbir mbir yooyu ñu koy soxla yu muy lu mel ni ay matières premières yooyu pour defar seen seen industrie loolee da leen a yóbbu ci ñu def li ñuy wax sanc muy muy coloni euh, colonisation. Ah, colonisation ba itam sañcu économie dafa daal moo daan jiitu goog politique topp ci. waaw waaye nag ci gàttal ngir bañ a guddal maanaam euh, xaaj bu njëkk bi kon ni ma ko waxee woon yëngu euh, yu mëlesoof yi waaye dafa amaat yëngu-yëngu yi daa contre pape bi. parce que pape bi ni ma la ko waxee léegi muy muy muy église bi dafa am ay xam-xam yu leen andil ak tënk gum leen tënk maanaam xañ leen liberté xañ leen yëpp ñoom itam. bi xamee ne yëf yi da leen kii ñu daam ñu ñu jug nag def ay ay ay ay yëngu-yëngu xarakaat islaahiya ci la bokk ñoom Martin Luther yooyu nga da dégg ay Calvin ay Zwingli yooyu ci ci ci ci jamono jooju la amee. boo ñëwee ci beneen xaaju ñaareel bi mooy jamonoy mooy jëm kanam gu xam-xam ak yewute gu ndefar mooy mooy industrie ak ak ak ak ak science euh, euh, maanaam loolu mi ci téere bi beneen xaaj bi beneen beneen ñaareel bi. jeexital gi nga xam ne tugal da koo def ci yooni gëstu yoo xam-xam yu jullit yi jullit ñi dafa am ay méthode de recherche yu ñu yoroon yoo xam ne tubaab yi biñ ñëwee dañoo ñëw am benn eh, maanaam eh, dañ cee jeexitalu dañ eh, dafa am influence dafa bàyyi ay ay ay jeexital yooyu ñu ñu jaare ci ñoom itam comme li nga ma doon laaj léegi bëgg nga mën a laaj loolu dafa bokk ci li leen gën a maanaam influence pour ñu mën a mën a mën a mën a mën a dugg ci jamono yeewute gi maanaam ci gëstu wiin ci yooyu yëpp bëri na gëstu yooyu gis fi ay fisia ak ay ay ay ay ay fëlëg ak yooyu yëpp jullit ñi dañ leen ci jiitu maanaam méthode yi ñu tegoon ñu jëfandikoo ko ñoom itam pour mën a dem boo ñëwee ci beneen xaaj bi da nga fi fekk wàll yi euh, wàll jëm këram yu xam-xam ci tugal xam-xam euh, ni mu doon jëmee tugal euh, maanaam ni doon avancé ci ci tugal dafa am yenn xam yoo xam ne moo fa gënoon jëm kanam yooyu itam da la koy woot bu baax a baax yow teg defar mu ñëwaat ci itam loolu bokk na ci beneen xaaj bi boo ñëwee ci. ñaareelu bunt bi moom itam mu ñëw ci moom itam mu doonaan ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy yëngu-yëngu yu politique yu mag yi ci adduna bi adduna bi dafa am ay xarakaat siyaasiye yu mag maanaam bu ci nem wax la ko bi ci topp mooy feeñu càmm yu bennoo yu Amérique maanaam euh, les États-Unis maanaam mooy mooy maanaam jim boobu dañoo feeñ lan moo ko tax mu feeñ ci nan la sosoo et cetera ak yooyu tamit daf la ko leeral bu baax a baax andil la maanaam Amérique dëgg mi ngi tàmbale ci gàddaay gi nga xam ne waa Angleterre daan nañ gàddaay dugg biir Amérique maanaam ak biñ fa demee ba mu yàgg ñu jéem a xeex ñoom am seen indépendance ak yi ci yi ci aju yëpp mu ngi andil la ko bi mooy jeqiku nga amoon France muy révolution française waaw mu leeral la ko moom itam muy muy muy loo xam ne tamit chapitre bu am solo boo xam ne boo ko liiree dana la leeral lu bëree bëri loo xam ne am na tey te ci ci foofu foofu la cosaanoo beneen beneen xaaj bi euh, ci ci ci ñaareelu bunt bi mooy yëngu-yëngu yi aju ci fonk xeet mooy nationalisme maanaam ci tugal maanaam ci euh, fonk xeet googu maanaam réew yu bëri yoo gis tey mu taxaw fii ci nationalisme googu la la amee maanaam Italie dafa doon ay daggiti réew yu bëree bari ñu xeex ba doon doon benn ay ay jàmbaar ci biir Italie ñoo ñoo xeex xeex boobu def leen benn loolu mu am France moo am fu mel ne ang ang kii nu ñu koy waxati autrice am fu mel ne Allemagne et cetera yooyu yëpp da ko da ko indi dégg nga benn lug Italie comme ni ma la ko waxee léegi maanaam unifié euh, Italie muy benn benn Allemagne Allemagne dafa doon ay kii yu tamit dañoo benn yooyu itam wax ko. dégg bu defee ñetteelu bunt bi nag moom mi ngi ñëw ci doon moom itam ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi wax ci colonialisme maanaam gu bees gi tey am sabab yi indi woon maanaam colonialisme am ak ci nan la amee woon bi ci topp réewi sañcaat yi mooy réew yi doon ko def colonialisme yan lañ. ñaawteef yi ñu àndal moom itam wax ci wax yëngu-yëngu nasaraanal mooy li ñuy wax tey tansir tansir euh, nasaraanal mooy évangélisation bat bi daa xaw a gudd tuuti waaw maanaam mooy nasaraanal ak lim làmbool ci aw ay lépp lim ëndaale yëpp tamit mu leeral ko ci téere bi beneen beneen xaaj bi mooy biñ duggee ci euh, vingtième siècle muy muy muy ñaar fekkeelu xarnu dafa am ñaari xare yu mag ci adduna bi yu am muy xare ñaari xare adduna yu njëkk yi mooy bu njëkk bi ak bu ñaareel bi loolu da ko détaillé leeral la lépp ni mu demee ak lu ko sabab ak fam jaar ba mu jeex mi ngi ci téere bi mu andil tamit bi ci topp mu andil la mbootaayu adduna yi euh, mbootaayu adduna yi nag boo ko xoolee li ñuy wax kuréelu xeet yi la kuréelu xeet yi mooy xusbatul umam euh, maanaam mbootaayu xeet yi moom la ñuy wax ONU moom itam am bu ko defee am beneen mbootaay bu ñuy wax mbootaayu réewi jullit ñi mooy mutamarul euh, euh, adduwal al islamiya bi ci topp mooy dank yi dank yi mooy bloc yi bloc yi dañoo am maanaam réew yi nga xam ne dañoo def ay dank ak réew yi féetiwul fenn mooy duwal xandamul inhiyaas yooyu yëpp tam mu leeral la ko euh, tasal la ko bi ci tos mu ñëwaat ci benn baat boo xam ne boo ko waxee dana xaw a diis waaye nag wolof fa muy li ñuy wax mbéeféerug ndeneer gi mbéeféer bu ñu ko waxee xam nga mbéeféer mooy nga ñëw conquérir fen loolu loolu boo demee ci rab yi da nga gis benn fekk barabu jàmbur ay ay nangam nga ñëw mbéeféer ko mooy nga nangu ko waaw loolu mbéeféer gi nag moom la ñuy wax xaswul fadaa maanaam mooy mooy mooy mooy conquête de l'espace tey euh, ah, dañ koy xëccoo di sànni ay missile fee nangam nangam loolu itam mu détaillé la ko mu ngi ci téere bi euh, jëm kanam gi Japon jëm kanam moom itam. moom itam jékki-jékki rek doon am euh, puissance nangam nangam waaw moom itam mu leeral la ko ci lan la basé wu ba def ko nangam nangam nga xam ne téer yi tey euh, boo ko xoolee euh, ci gàttal danga gis ne téer la boo xam ne daj na man na man na bu ñu mborum mboorum si la nga gis ne mboorum adduna si ndax laal na fu ne ñaareel ba itam li tax mu jare jàng day téere boo xam ne boo boo ko jàngee daf lay wax lu bëree bëri luy am ci àddina nga koy gis tey lii mooy cosaan li nii lañ ko defee nii la demee bu ko defee yow nag boo ko jàngee boo ci sukkandiku maanaam dana la indil ak wute goo xam ne yow itam maanaam boo demul nag ci yow la loolu daal moom. kéemtaan gi kéemtaan kéemtaan gi ma ci gën a seetlu nag mooy dafa doon benn téere boo xam ne tey boo doon boo doon boo jàngee li ci ne dafa mel ne jàng fukki téere wala juróom fukki téere ndax loo doon jàng loo doon jàng ci juróom fukki téere tey moom la la tënkal fii tey ci ci loolu seetlu naa ko ci téere bi. tey itam noonu fi ne boo ko jàngoon te xamee ko na nga ko war a xamee soo noppee wax dëgg yàlla lu waxati. ma am nga ci am waaw maanaam cosaanul yëf yi xam nga ko te loo xam cosaan la nag pratiquement da ngay doon koo xam ne moom moom yëf du la jaxalati parce que Abdou Khadir téere bi mool nañ ko waaw mool nañ ko mool nañ ko téere bi mool nañ ko euh, ki ko mool nag mooy EGIO euh, maanaam ak na ñoom benn benn ñaari kii la ñu ñaari euh, maison d'édition maanaam ñaari kër yi mool lañ yu dajaloo mool ko kenn ki maanaam mooy professeur Boris Diop mooy directeur bi moom mooy jàmbaar joo xam ne tamit wax dëgg yàlla maanaam bëri na euh, maa ma nga euh, université yi nekk Nigéria la nekkee di jàngale fii it yàgg yàgg na jàngale daan bind ay ay téere yi maanaam li ñuy wax euh, roman mais dafa mujj bàyyi koo def ci francais di ko def ci wolof parce que xam na ne ci wolof maanaam mooy yoon ndax boo bëggee jàngal sam réew waaye yëmu ca boo ko defee wolof ba nag mën jël nag traduire ko ci beneen lakk moo tax moom ci yooyu lay gën a liggéey bi ci ci mooy mooy ku du mel ne sëñ Xaadim Njaay téere bi nag Euh, def nan ko euh, maanaam boo ku ko bëgg fi ne boo demee lu mel ne euh, maanaam bibli kii duñ koy waxati sax Clair Afrique ak quatre vents wala Harmattan ñoom war na faa am. ay librairie lañ. boo ñëwee moom ci jëmmi boppam itam xam naa daa leen jox ay ay ay numéro yoo xam ne su ngeen bëggee ku ci soxla su jox koog ñoom it moom it dana ko mën a am ci lu mu gën a gaawee daal waaye def nañ ko wax dëgg yàlla muy muy muy liggéey boo xam ne téere bi it biñ ko bindee léegi ëpp na fukki at waaye maanaam réew mi am nañ problème mu génn ci wolof waaw maanaam boo demee sax pour nga ku ko génneel dana jafe boo ko génn waaw waaw yu mel noonu. itam yaa ngi dox ci jëm koo protéger ak it fexe ba mu dem ci euh, librairie yu mag yi ba mu tasaaroo ci addina bi. ci musée yu mag yi ba ba ba ñu xam ko ndaxit lii day day day day cosaanu réew mi day cosaanu réew mi ndax xam-xam bu toll nii nga dajale ko ci euh, lakk boo xam ne làkku réew mi la loolu itam xëy na dafa am solo. dëgg la dëgg la maanaam euh, maanaam loolu moom am na déjà bu demee bo euh, série bi léegi. droit d'auteur bi maanaam léegi am nañ ko muy téere bi moom kenn sañu tuuti ne téere bi téere kenn la nangam parce que loolu itam wax dëgg yàlla ni nga ko waxee bëri na lu ma daan bind mais damay xëy rek gis benn waaye teg ca moom <laughs> loolu dama ko seetlu ay yoon kon lé waaye ne boo xasee ba mu doon téere jaar fa mu war a jaar maanaam loolu moom kenn mënatu ko bi ci topp itam muy ni ma la ko waxee léegi euh, librairie yooyu librairie yu mag lañ li ci am na nag ñu ngi defaat beneen kii boo xam ne war naa mën a nekk ci lu mel ne Amazon wala yu mel noonu ku ko soxla léegi fii ak lu néew da nga ko mën a jënd même ñi nekk ci bitim réew yëpp eh, mën nañ ko jëlee ci internet bi à euh, lu mel ne Amazon wala yu mel noonu waaw loolu moom moom yàlla dogal na daal. wax macha allah wax nga ko ci sa njëlbeen bind nga ay téere ci yu bëree bëri ci fànn yu bëri bi ma ci gën a yitteel nag mooy constitution bi nga bind wolof. loolu moom jàpp naa ne jéego la boo xam ne nguur gi sax ñoo ko waroon def ndax ñoom ñoo am soxla ci askan wi xam li ñu leen di attee waaye ndax xalaat nga bind ci yeneen yeneen i yeneen i yeneen i euh, majaalaat yeneen yeneen i domaine ci wàllak wolof waaw bu wér ndax xam nga maanaam li ma seetlu ba seetlu ko ci gëstu yi ñu def ñun egg nañ ci foo xam ne amul luñ ñoom luñ ñu mën a tegal te mënuñu ko def ci wolof amatul xam nga Cheikh Anta daana wax lu am solo nee na euh, maanaam làmmiñ du gàtt xelay gàtt foo fu lam xel fu mu xel egsi bët egsi fa làmmiñ war na ko mën a tudd te yàlla dogal na loolu ni koy xamee mooy lakk dafa am nu bindoo maanaam baat bi dafa am ay reen waaye dafa am ay li ñuy wax ay toppaan ak i njëkkaan loolu la ñuy ay préfixe suffixe yooyu ci ngay sukkandiku loo gis war nga ko mën a tëgg ndax la yëf yay def maanaam da koy décrire rek boo ko leeralee rek boo ko boo ko melalee rek mën ko tudd soo ko mënee tudd di la muy def nga mën ko wax kon day mel ne amul luñ mënut a wax ci wolof loolee nag ci ci ci lañ xamee ne kon amul xam-xam bu mu mën a doon boo xam ne mënuñ ko def ci wolof maanaam suñu xëtu Facebook bi tudd académie wolof boo fa duggee xam-xam yi yu ci ëpp lu ci ne dañ lay seetal fa mu gën a jafe ñu jël ko andil la ca terminologie yi ñu soxla jël ci ay lu néew tekkil la ko wàccal la fa ga xam ne tey boo boo ci bëggoon def ay gëstu dafay yomb waaw maanaam loolu moom amul te itam am na yéene it bindaat lu dul jeex te it jot nañoo bind lu dul jeex waaye bëggaat nañu bindaat waaye yooyu yëpp itam dafa am lu ko loo xam ne moo koy jiitu jamono ju ne mooy li nga doon wax état bi war nañoo wax ak moom mu jël làkk yi dugal ko ci école yi même bu dala sax ñu lijjanti ba nit ñi mën mbind mi waaw joxe ci ay notes nga xam ne tey boo mënee bind bi dafay baax ci yow loolu suñ ko defoon rek dafay encouragé maanaam loo bindati nit ñi dañ koy jël ndax li ma la ciy jox misaal. boo demee tey ci xibaar yi ñuy def boo demee ci revue de presse bi dangay ngay gis euh, bi ñuy waxee ci wolof da gis ñu déglu ko lu tolloog dix mille fois bu dee ci wolof bu dee ci France bi ay ay ay ay daanaka boo ci weesoo mille fois mille fois daanaka maanaam da ngay gis ne kon wolof nit ñi bëgg nañ ko boo demee ci télé yi théâtre yi ak yu yëpp wolof la boo demee ci waxtaan yi politiciens yi di def même débat yi léegi lépp ci wolof lay doon kon day mel ne wolof moom nga nangu ko wala nga bañ ko nangu domine président xam na ci dara bërki dem boo njaay ci discours fin mm. bi mu def ci français mm. jataay bi mu def ci wolof la nit ñi gën a topp ah ah wax jàngoo ah, ah, kon nag réew mi mënatuñoo dem te jànguñu ci wolof loolu moom xel da ko nangatut léegi nag loolu bu ñu ko jàppee ab xeex wala dara yàlla ko def te te lim def ñun ñëpp dañ ko war a bëgg ndax suñ njëriñ la bu fekkoon wolof bii fii mu toll ci Sénégal tey français la man du ma wax fran du ma wax wolof français lay wax bu fekkoon te ne ni tey tukkulóor la ma wax wolof tukkulóor lay wax waaw nee mu ni français mel tey Côte d'Ivoire bu fekkoon euh, wolof mel na ko euh, français mel na ko euh, fii ci Sénégal da dul doonati farata ci ñun ñuy jàng beneen làkk ndax dañuy tardel à moins nga jàng ko rek ngir denc ko ngir mën yàlla la ko jox nga war ko téye waaw. tey it nag am réew ta développé ci làkku jàmbur. mënta développé ci làkku-làkku jàmm sëñ Abdou Khadir xam naa liñ xabaabal nañ sax waxtu wi ndax waxtaan wi moo neex xam naa ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi lii suñu njëlbeenu jataay la waaye dinañ fi dellusiwaat ci yeneen jataay ndax barina loo bind ci wolof waaye itam nag bëgg nañ sax yeneen jataay yoo xamante ne dañuy ñël ci yeneen domaine nag domaine entreprise beeg yooyu nag domaine intellectuel bi nag domaine intellectuel bi dañ ci dellusiwaat nag incha allah <laughs> ndax itam ñu mel ne yéen di ndaw yi dëkk bi ndax ump nañu baree bari ñu mel ne yéen ñi ngi ci dëkk bi bari na tey boo génnoon li ñuy njëkk wax Tuubaa ay analphabète lañ dégg nga lii lii nga wax sax xëy na émission bi ko ko seetaan sax dana ne ah non Touba gëw ma woon ne nit ñu mel nii am nañ fa te ay junni junni lañ ci am ñooñu nag war nañ leen promouvoir wane leen wane seen liggéey wane seen taxawaay ba ñu xam ne sëñ bi moom ñàkkul dara lépp am na ko lépp daje na ci sëriñ bi ci ëttub sëriñ bi kon ñu ngi lay sant bu baax baax di la gërëm di la jox kaddu nga nga tàggoo. waaw li ma doon li may mujj wax rek damay dëggal li nga wax ni réew mi jàppee ku jàng bu fekkee noonu lañ demee sëñ Touba mi nga xam ne moo ëpp lu mu bind ci Sénégal maanaam mën naa mën ci àdduna bi sax moo ci ëpp lu mu bind ab ab analphabète la boo ko xoolee maanaam ndax am <laughs> doogam daara lañ ko jàppe kon côté boobu man du ma tiital du ma ci am lu ma naqari daal waaye ñi ngi lay sant bu baax di santaat euh, di sant sëñ sëñ Abdou Khadir moom itam ci ñëw gi ngeen ñëw fii wax dëgg yàlla wooye fa tax waaye euh, li ngeen représenté maanaam mooy Touba euh, di jumaay Touba yéen a waroon woote ñu ñëw bu ngeen amee woyef nag ñëw fii wax dëgg yàlla loolu dañ koy jàppe rek ne maanaam fonk ngeen fonk xam-xam ni ko sëñ Tuubaa fonke woon waaw waaw mu ngoog mu ngoog kon ñu ngi leen di sant bu baax di rafetlu euh, yëf yi bu wér a nag di leen ñaanal euh, télé bi àgg ci doon maanaam télé boo xam ne day doj àddina bépp te te te sëñ Tuubaa ak jumaay Tuubaa yeewee nañ lépp loolu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf di seetaan di sant itam ñi leen di seetaan ñëpp rek salaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf sëñ Abdou Khadre Kébé kon mbokk yi lii mooy jataay bi nga xamante ni moom lañ leen indiloon tey ci ndaje liqaat ñu amoon ci gan gu màgg nag ni ngeen ko gisee xam naa ku seetaan émission bi dana xam ne euh, émission bu ñu yéex a def la bu ñu war a itam continuer di def la euh, muy sëñ Abdou Khadre Kébé ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ndaw loo xam ne ni ma ko waxee ay yëngutoom ci wàllu koom-koom doonut ku bàyyeeku ku yàccaaral koo xam ne dafa bàyyeeku yaakaar ay luy jóge feneen ci yeneen i loxo waaye dafa yaakaar ñaq boppam waaye teewut nag mu bàyyi xel doomi soxna gi mu doon doomi soxna ci jéem a gëstu ci xam-xam jéem a gëstu itam ci eh, lislaam ak njàngaleem sëriñ bi waaye itam jéem a nag participer nag ci développement wu réew mi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëm yéen téléspectateurs yi nga xam ne yéen a àndoog nag ñun ci GMT ci GMT TV ci seen eh, eh, émission émission al liqaat muy ndaje di leen jox beneen jataay ci fan yi incha allah di leen sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي